lu ñu taxoon jóg te euh, ministre Mansour Elimane Kane yabal ñu fi mi nga xam ne mooy ministre infrastructure transport terrestre ak désenclavement mooy ñu ñëw waxtaan ak acteurs yi ci wàllum insécurité routière parce que lépp lu ñuy waxaat mu jëm ci permis à point yi ñu demee yooyu yëpp ci wàllu nu ñuy xeexee insécurité routière la boo seetloo ci màggal gaag léegi daanaka. Euh, juróom benn fukk ak juróom ñetti nit faatu nañ ci wàllum accident te bu ci gën a metti ñu ñëpp ñu dund ko mooy bi xewoon ci Koumpentoum fukki nit ak ñeent ñàkk seen bakkan ñett fukk ñaar yëpp daanaka lakk ba jeex kenn mënu leen xàmme wax dëgg yàlla kooku képp kuy citoyen wala kuy nit rek tout loolu war na interpeller sa conscience moo tax ku nekk war a jóg taxawaat ñu xool naka la ñuy lutter contre ces ces ces aspects ces ces moo tax ñu ñëw di waxtaan ak acteurs yi si cause accident yooyu ñu xam ni quatre vingt pour cent ou quatre vingt treize pour cent cause yooyu yëpp si nit ki la yaa ngi dawal di dépasse fa warut a dépassé yaa ngi dawal di am excès de vitesse yaa ngi dawal mooy yàkkamti bi rek yaa ngi dawal sonn nga bañ a noppalu gëmmentu yaa ngi dawal guddi mu doon ay parce que accident yu grave yu nuy gis yëpp entre fajar la entre timis la ba fajar donc ñu xoolaat dawal guddi bi nu ñu koy réglementer aussi parce que ay danger lay constituer fu boo waxee ñu la tali bi il faut ñu defaat que waaw d'accord loolu état mu ngi ciy bay waaram dëgg yàlla ku waxal yàlla ku ne xam ne état mi ngi investir mu ngi def effort yu rëy rëy ci tali ba ñu di sax di faral di tooñ di sànni xeer naan tali kenn ko lekk oui dëgg la kooku loolu mooy ni état au moins mi ngi def dara ci wàllu tali wàllu renouvellement du parc bi wax nañ ko mooy wàllu oto yi ak compte centre ñuy teg euh, à war ko généraliser dans toutes les régions boobu tamit appel d'offre bi lancé nañ ko ba pare ñu ngi si attribution yi donc bu nu si yàlla yóbboo daanaka su début d'année bi rek incha allah daañu signé contrat yi foofu aussi pour permettre ki koy gagné mu defal ñu centre contrôle technique yëpp comme bu nekk Dakar mu defal ñu ko si région yëpp bu ko defee contrôle technique bi mu matale mu des nag nit ki nit ki benn mbir la am pour dawal muy permis permis boobu tey boo defee infraction Euh, code bi dafa prévoir ñu laal sa poos teg la amande wala ñu daan la ci sa wàllu wàllu wàllu wàllu carte des fois duñu nag duñu téye oto bi wala ñu daan la si sa wàllu permis mu dem commission ñu retiré ko wala ñu daan la si sa wàllu yaram mooy ñu ñu jàppale ba tëj la daal yooyu yëpp am na mooy accident corporel accident corporel yooyu yëpp day am alors mu indi ñu ñu ni kon nañu xoolaat permis boobu niñ koy joxe parce que mooy diplôme bi nun koy jàngalee ak nun koy defee moo tax ñu war da auto école yi wax ni buñ ko réformer ba pare def jubtuwaay yëpp même carrosserie yi ñu ñu ñu aider yi ñu mën a am seen auto école bu ñu defee loolu yëpp ba pare ñu ne léegi képp kuy bëggati passé ci permis obligatoirement di nga jaar auto école mooy di nga formé wu di nga am formation bu baax pour mën a am diplôme boobu alors boo amee diplôme boobu parce que ngay seetlu booy wuti diplôme boobu da ngay correct da ngay euh, respecté li la wax lépp bu bañ a def fausse manœuvre balaa ñu lay dàq ainsi de bi daal comme ni mu waree waaye daanaka boo xasee ba rek lu ci ëpp comme sama genre dañuy bàyyeeku demee nag sa jikko bopp génne nag sa jikko dafa mel ni kon booy passé permis da ngay àbb jikko mooy respecté code bi mel nii waaye boo demee ba ci biir commencé rek dawal rek sa ji sa sa jikko bu nga génn sa jikko bopp te loolu nag warta am ni oto ak tali dafa am lu leen réglementé mooy code de la route bi donc permis boobu ñu xool examen bi nu ñu koy defaatee mooy euh, déjà examen code bi bu dee defati examen code au lieu que ñuy dajale ñu di si salle di leen poser question wala ñu toog si salle classe di leen poser ay question si kayit ñuy bind léegi machine mooy toog sa kanam nga takk sa casque machine bi di la woon ay situation naan la si langue langue bu la neex la parce que am na juróom-ñaar juróom-benn langue yi nga xam ne daan ci waxtaan ba déposé ak acteurs yi ni juróom-ñaari langue yi juróom-ñett juróom-benn langue yi yaakaar nañu moom la ñu gën wax si Sénégal képp kuy passé nga ñëw tànn langue bu la neex nga toog sa machine machine di laaj ay question ngay tontu boo paree machine moo la am nga wala amuloo donc loolu ku jàngul mën na ko tari foofu lañu ci wàll ci wàll woowu mu des nag euh, permis à point bi permis à point bi day tax infraction boo ko defee yenn infraction yi boo ko defee xam nga du lay verbaliser nga dem fay waaye du am benn jeexital si sa permis yu si ëpp du am benn jeexital xanaa mu dem commission léegi dañuy wax ni am na yenn infraction yu nga xam ne soo ko defatee non seulement boo fayee dina la dindal ay points si sa permis mu wóor ni la yow document boobu nga yore tey muy sa document de liggéey muy sa document daanaka moo tax nga dawal oto bi tey bu la dindalee ay points di nga xoolaat bu baax li ngay def balaa ngay defati infraction yooyu loolu mooy indi ñu def euh, permis à point euh, su ko defee ñun ñëpp ñu bokk mën a lutter insécurité routière boobu ak accident yi waaw lu ñu wax mooy xam nga dañoo wax initiative état moo ko yor te chef de l' état moo yor politique de la nation bu nee ni ci secteur bi nii laa bëgg mu doxee parce que waxoon na ko depuis mois de novembre 2014 nee nañ ko defal permis à point loolu administration la koy sas administration nag boobu la commencé liggéey commencé di xool fu mu am xool nu ñu koy defee techniquement ak réglementairement qu'est-ce qu'il faut modifier defar yëpp ba ba ñu toll si ay proposition def ay proposition yëpp pour teg boobaa nag la ñuy ñëw toog ak acteurs yi ñu ah li ñu président santoon de nii lañ ko defee nii la ñuy xalaatee nii la bëgg luy la lan mooy si seen xalaat ñu ne ah bii de yaakaar nañ bu leen ko defee nii dina gën wala yokk leen si wala dina leen lii ñu waxtaan ba jubóo si kàddu ñun ñëpp ñu bokk dëpp dëppandoo defaroon waaye bu dee waxtaan wax dëgg rek la yaakaar naa bu ñu commencé quel que soit sujet bu ñu war a aborder ci Sénégal buñ ci waxtaanee lu mat juróom-benn weer bu dee dëgg rek tax ñëpp di wax war nañ ci mën trouver solution moo tax problème délai moom wax dëgg yàlla du problème bu nga xam ne moo ñu fiy taatal xëy na waaye bu doon ay disposition technique la yooyu moo ñu waroon taatal te disposition technique yëpp jël nañu ay devant pour que ñu bu ñuy d'accord acteur rek ñu mën a jublu ci mise en œuvre yi. ñu war fàttali. mooy code bi actuellement dafa dafa leer réglé na problème bi depuis depuis longtemps kuy dawal Jakarta da nga war am permis permis de conduire B lool la code bi wax den nga képp ku fiy dawal Jakarta te amoo permis du la war téye du la war arrêté war a dawal c'est pas possible lool benn da war am oto bi li ngay dawal moto bi ngay dawal dañ ko war immatriculé loolu la ñuy wax mu leer ñu mën ko identifier dafa war am assurance mu leer ki koy ki ci yéeg wala ñu ci yéeg dañu am casque de sécurité homologué loolu yëpp nag mu ngi si code actuellement et c'est des infractions yenn sax délit la waaw ku koy def te dafa euh, euh, dëppoo yoon ah yoon dafa daaw si kaw boo déggee président di wax tolérance si yooyu la actuellement boo waxee ñu ne way nañ toléré xale yi xale yi duñ liggéey dëkk bi amul liggéey nanga ak nangam waaw dëgg la dëkk bi amul liggéey bu ñu waree liggéey nañ ko teg si yoon nañu respecté loi bi ñu teg si yoon ku bëgg liggéey na nga conformé wu nga liggéey foofu la ñu toll donc li ñuy wax ni ñëpp la concerné për borom permis yëpp la concerné kon jakarta yi euh, comme président nu ko waxee force de défense et de sécurité yi daan jël seen matuwaay effectivement pour ku amul te permis wala ku amul immatriculation yi ñu xool nu ñuy jëflante ak yow loolu mooy tolérance zéro foofu la ñu jëm incha allah. waaw maraudage bi loolu dëgg dëgg neex yàlla man de def naa sama combat li gaa ñu di tuddee war gaynde daanaka mooy nga jënd sa benn oto rek naam mën na nekk sa oto transport yow mi ko jënd war ko dawal da exploité amoo agrément mooy donc bokkoo si profession bi agrément moo lay dugal si profession bi oto bi ngay dawal amul licence donc amul licence bu koy permettre mu def transport boobu nga koy defloo tey oto bi donc oto bi yow amoo autorisation oto bi amul autorisation ki koy dawal permis bu mu yore du permis transport en commun permis euh, comme ñu man a génn la particulier comme man ak yéen kooku kay dawal donc mi ngi mi ngi enfreindre la loi ñi mu yàpp amul assurance bu leen couvrir donc loolu yëpp donc ay insécurité boole nag conséquences économiques yi muy causé ci acteurs yi concurrence déloyale loolu nag dëgg dëgg daan ànd ak acteurs yi daañu ko xeex ànd ak force de défense et de sécurité yi. ba képp ko nga xam ne bëgg nga dugg si profession de transport nga dugg ko par les voies légales nul ne peut être au-dessus de la loi dans ce pays-là.